on va enchaîner tout de suite ak euh, yi nga xamante ni euh, moom la nuy euh, àggali juste permettre à notre invité suñu gan bu njëkk bi yeewandoo ak ñun tey ñu installé ko muy Ablaye mbay bi Ndiaye laa bëgg a tiiñal parce que nee na Ablaye Mbaye bu ko nuyoo daf koy xàmmee léegi damaa bëgg ngeen ñëw ran ma xool ndax Ablaye mbay dina xam kan moo koy nuyu kaay leen en ran yéen ñëpp venez comme yow nee nga da wax. waxkat nga kaay leen ma dañoo woon rang rang leen kuy ziar da ngay jege rang leen nii Ablaye mbay yow comme da ngaa am fit damaa bëgg rek nga wax ma xale yu jigéen yi di la nuyu ku ci biisu Ndiaye rang leen. na ma yeewoo bul nuyoogum. rang leen nag xam nga rang leen amul yeewoogoo amul. dara yow da ngaa ëppal tey dama laa bëgg indil ay problème ci tele bi voilà. voilà léegi histoire bi ni mu demee mooy tey ci fajar bi ñu yeewoo bii su Njaay seytaane la dafa ne. Mhm. Euh, naan ma xam nga Pape Cheikh Ablaye mbay sama xarit la. parce que léegi moom bu la nuyoo rek daf lay xàmmee parce que man saa yi ma nuyoo rek ni ma biisu su Njaay léegi raa raa baa ngi. dama bëgg ngeen rang mayaat leen ma rang bi ma xool. non yeewoo ko ma Ablaye tey lii la ci génne laa xamul. Pape yeewoo ko ma Pape li ngay def tamit. léegi pour yow ñaata xale yu jigéen a taxaw fii sa kanam. Euh, waaw tubaar fa kàlla macha rek. non tubaar macha allah waxa rek bëgguma leen catu bàyyi noonu rek. ah bëggoo leen catu waaw bëgguma leen catu. d' accord léegi na am ku njëkk nuyoo. bu dee Bijou Ndiaye la nga wax ma kii kan la. non kii du moom. ok dama toog yow kooku kii ay dara la tudd. <laughs> wax kii kan la keneen nuyu ma la. non kii tam du moom. kii du moom. kooku Alfi la tudd. Alfi dama toog ah, nga ne. Alfi Alfi Alfi. waaw na keneen nuyoo kii kan la. kii tam du moom. Ah, kii di waaw kii moom loxo bi dafa tijji. <laughs> <laughs> loxo bi graisse rek la na keneen nuyoo kii kan la kii tam du moom. ah kii tam du moom. waaw d' accord ok. Ablaye. non yow du moom doo moom yow dafa <laughs> yow moom puudar si. d' accord yow moom. ok yow du yow moom. Salikaay. Eh, demal Salikaay. et eh, Miss. bisou. bisou bisou re. bisou re. bisou re. Ablaye da ngay jaay am fit rek Ablaye kii kan la. xam nga Tijane ma rek nga bëgg xam nga du moom. d' accord allez Ndeye Fatou nuyul. ça va ça va. Ablaye la. non yow yow war nga xam ne du moom. Bijou moo la mujjee nuyu alors Ablaye bienvenue ñu